li mu wax nii mooy problème réew mi te loolu la ñëw pour fàtte si kon vraiment ñi ngi. Mhm. immigration clandestine. Mhm. si mhm. na si ñaari aspect yooyu. waaw ah, parce que boo xoolee la potentiel problème du Sénégal mooy loolu tey boo xoolee ndaw yi génn seen seen yi gaañu si euh, ñàkk seen bakkan ci géej gi bari na donc dina région dina xool problème boobu fu mu nekk ñu ñëpp vraiment dañ ci toog waxtaan ak moom xool problème ñetti problème yooyu. ndax mooy problème potentiel Sénégal ba ñu juddoo ba léegi mbënd bi la ñuy dégg donc comme dafa ñëw pour régler détail boobu vraiment dañuy dañuy vraiment euh, rafetlu rafetlu affaire bi di ko di ko di ko rejoindre rafetlu affaire di ko rejoindre di ñaan yàlla aussi mbir mi féetee boor di leen santaat di leen gën di ñaan yàlla daal objectif bi mu atteindre ko. j'espère que loolu mooy euh, souhait bi quoi. voilà voilà di leen wax rek ne aussi euh, atteindre le l'état du Sénégal moo war a nekk but bi. na ñëpp ñëw ngir yàlla jàppale président bi mu eggali vraiment mandat bi ndax dëkk bi mën a neex mais mënuñ dëkk chaque jour déstabiliser état donc c'est c'est dafa metti quoi man nag vraiment euh, sama réaction mooy vraiment jàppale le président Idrissa Seck mu atteindre objectif bi fi nekk quoi. mais mais Zoss dafa mel ne léegi nekkatul ci làmb ji waxatul wax làmb mais léegi politicien bu mag la. waaw non commencé naa ko depuis 2018 vraiment di jàppale le président Idrissa Seck mooy ba ci dans les élections loolu vraiment engagé wu naa dama gis ne aussi euh, lu logique la. léegi <laughs> logique na logique na logique na pour ñu jàppale pour pour pour ñu jàppale l' état moo waral ñi ñi aussi vraiment euh, làmb ñu seen seen bàyyi ko tuuti benn côté moom dañ ñu ngi koy nekkal waa làmb ci biir politique bi. mais yaa ngi ci yeneen business tamit yoo xam ne si ni du politique. ah. yaa ngi ci yeneen business yoo xam ne tamit si don de sang bi le projet Arena a on a avec Afrique Pesage donc su le temps pouvez passer acte humanitaire la acte bu social la bu baax la donc vraiment GMA société est la woon aussi donc on a pas mal de choses à partager le mouvement DMD le mouvement Sen Africa donc boo dee amee temps def. liggéey bu baax ñu yaatal incha allah. mais mais Zos Zos euh, euh, look bi ak ak politique ndax ànd na sa bi nii nii nga def nii. moom look moom ak li nekk ci boobu ça n'a rien à voir c'est diamétralement opposé bëggee tam ma changé ko. def ko yow d'accord naa ko changé kon boo la ma gisaatee beneen look ngeen di gis. <laughs>